tey àjjuma fukki fan ak ñeent ci février di bésu Saint-Valentin bés bu ñuy màggal mbëggeel daanaka fépp ci àdduna bi waa l'Observateur seeti nañu woykat bu mag bi di Soxna Kiné Lam am ak moom waxtaan bu yaatu ci moom jëkkëram ba woon ndem ci yàlla dogo ginnaaw ba mu sëyee ak dogo ñeent fukki at ak benn Kiné Lam nee na jeex na aban na dootul bëggati beneen góor ci kaw suuf dogu na dogo rekk Kiné Lam dogo di làqu nee naa ko na ma xaar fële ci barsax ci mbëggeel moo bëri doole bi muy sëy ak moom mu ngi toll ci ñaar fukki at kepp waaye nee na rëcc mësul am seen diggante même su dee yenn saay jote mënul ñàkk dogo ku amoon personnalité la loolu la Kiné Lam xamle xamal waa l'observateur cadeau bu rëy bi ma mës may dogo mooy billet Makka ndax mooy demam bu njëkk fële ca bërëb bu sell ba damay njëkk a woy dogoo 1981 la woon booba maa ngi koy bëgg bay jooy di xamle ki ne la bi dogoo dëddoo ba léegi benn góor taxawul sama kër ngir ñaan si ma jabar man ak dogo di xamle ki nelaam daawoon nañ di fêter Saint-Valentin dama ko doon toggal yu neex ak di ko jox ay kado macha allah